si nañ ci fas yéene dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. naka suba si. ñu dooree kook Walf Quotidien ci xëtam. Walf Quotidien loo xam yéen a kaay gi Walf Quotidien xëy na te mooy Lansana Gagny Sakho mi yëkkati ay kàddoom daal wax ci parti bi di Pastef fa la bokk yëkkati na kàddam daal di ba neexul donte dañ koy B contre attaqué na koñe na daal di duma Ama Baldé noonu la ko yéen kaay gi moo Lo kon mu ngi si ñaar fukk ak benn victoire xarañ noonu la ko yéen a kaay gii euh, Sud Quotidien la ñu dikkee waaw yéen a kaay gii di Sud jamono ji nga xam ni élection lu muy gën di bëre jege si euh, coow li gën di takkarnaa si élection yi ko yéen ñu ne ni euh, waa waa DG dañoo lànk ni kon duñu jëfee dogal bi tukkee ci juge <laughs> boole kook ñu jël ay membre Sénat daal leen tabb tax kii di njaga si la yëg ay kàddam daal wax ne décret bi ni ko président Macky Sall ja tabbee jaarul si yoon da koy attaqué Mbacké Waldine wax si Bougane Gueye dana wax si ba ci Ismaïla Madior Fall yéen kaay gi dal neexul ba neexul waaye jamono ji coow li bari ci noonu la ko yéen euh, kaay gi di l'info tamit loolu la dellu si waat wax ci nomination nouveau membre ci Sénat euh, décret la daal boo xam ne président Macky Sall moo ko jël waaye décret bi jamono ji bëri coow ndax ñëpp ñi nga xam ne ay acteurs lañu ba ci doomu yi nga xam ne seen xam-xam màcc yoon ñu si bëri si ñoom neenal ko noonu la ko yéen gii di la turbine xëy fësale yéenekaay bi di réew mi di réew mi tamit loolu la xëy dellu si waat ab décret la goo xam ne la bu maanaam euh, a takkarnaasi bi ci biir xam ni président Macky noonu la ko yéenekaay gi di réew mi ndax nguur gi bëgg mënta nekk membre ci conseil constitutionnel ba noppi bëgg a jiite Sénat loolu mënta ne Cheikh Awa Balla Fall la nekk coordonnateur M2B M2M Serigne nekk candidat apériste malal euh, ci commune bu Mbao ci commune bu Mbos euh, Seydou Nourou Ba moom it euh, moom daal mm-hmm. ay ay ay mbir la daal yoo xam ne dañu jàpp ne ñii daal war a tax décret bi jàll noonu la ko yéen a kaay gii di yor yor xëy fësal Abdoulaye euh, Seydina Omar Ba le mandat waaye yéen a kaay gii di le mandat la Bougane Gueye Dany ah, ma ngay listé eh, eh, njuumte yi nga xam président Macky Sall def na ko ci dëkkam bi ba tax muy sàkku si ñi nga xam ne ay juriste lañ ñu jokkot daal di eh, leeral sénégalais yi ci décret bi noonu la ko yéen a kaay gii di le mandat xëy fësal source a ah, ne neexul ba ne fa président Macky Sall violé na protocole additionnel bu CEDEAO noonu la ko yéen mm-hmm. e e a kaay gii suusa xëy fësale ndax CEDEAO dañuy wax ne ne élection yi bu desee juróom benn weer weer maytuñu kenn mu ci indi lenn mu ci yokk wala ci wàññi leen noonu la ko yéen kay gi xëy fësale ci jamono ji la euh, euh, kii di Cheikh Omar Anne muy jëriñ ji dénk wàllu éducation ma ngay nag artu waa SAEMS ak waa CUSEMS xamal leen si ko nangu euh, fës na ci la soleil maître Aïssata Tall di jëriñ ji bees ñuy dénk wàllu yoon ci nguur gi yëkkati ay kàddoom ah, wax ci wàllu justice bi lee wax ne nag du yàgg dara dana fas yéene daal ñi nga xam organisation syndicale ko def ñu waxtaan jéem a seeni tawaat naka lañ def ba jëm ci indi saafara noonu la ko yéen a kaay gii de la Soleil xëy fës Abdoul Mbaye la dalal mooy njiite alliance pour la citoyenneté et le travail ACT nekk tamit candidat à la candidature élection présidentielle yi di ñëw Abdou euh, euh, Abdoul Mbaye kon wax na ci tolluwaayu réew mi wax tamit bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi fa nga xam foofu la bëgg a yóbbu Sénégal lépp mu ngi ci yéenekaay gi moom mooy bàmmeelu lenn ci ay doomu aadama xam hmm. euh, ne dañ lañ mujjee wallu foofee yoo xam ne dañoo mujjee ñàkk seen bakkan hmm. ba finalement sax nag ne combat Ama Baldé Modou finalement Ama kon mujjee naan lap mhm. euh, ci géeju loo bi maanaam ci géej gi la ko yéen kaay géej la côté ñu xëy Fesal Abdoulaye nangoog euh, fësaat na ci suñu lamb Modou noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale kon titre roi des arènes ba tey mu ngi ci loxol Modou Lo nangoog euh, stade suñu bi ñu ngi doon xaar si ñoom ñu wane seen bopp waaye mbir yi daal daanaka tax koy demee noonu waaye ki ci gën doy waar mooy Sadio Mané mi nga xam daanaka juróom benn match ngi nii dugalul benn but yéen gi da neexul ba neex suñu attaquant yi bu fekkente ne daal ci ñoom lañu yaakaar ci coupe d'Afrique bi en tey na xel noonu la ko yéen kaay gi di stade xëy fësal Abdoulaye mu ngoog euh, Seydina Omar ba fës na lool ci baatu askan wi dañ ci dikkaat incha allah na gën a yar abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér si réew mi ak ci bitim réew